beaucoup jërëjëf internetu DS Prod média gannaaw ba ñu leen nuyoo comme ni ñu ko baaxoo di defee saa sune ne seen émission kaay toog na ñu dalal nag daanaan ba nga xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal ak biti réew ah c'est la grande chanteuse Mia Guissé Mia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. bàyyi la nga nuyoog internet yi. Euh, maa ngi lay euh, nuyu di mm. rafetlu invitation bi nuyu internet yu ñu seetaan yëpp euh, di leen wax ni waaw seen doom a ngi nii seen xarit mi mm-hmm. yaa. Aïcha mu ngi noonee teewaay bi nag li ko waral mooy événement bu rëy boobu war a xew ca Nouakchott ci Mauritanie ki ko organisé nag nekk waa Lavage Events ak ki nga xam ne moom mooy Desprod mm-hmm. Mia lan nga ñu mën a wax ci événement boobu. waaw mu doon événement boo xamante ne dafa spécial man pour man Euh, parce que day nekk sama première sortie en Mauritanie et euh, ma ànd ceeg euh, ñaari promoteurs yoo xamante ne vraiment ay ndaanaan lañ ci euh, ci milieu bi. et puis man na ci ànd aussi sama sama xarit sama frère advisor ñu nar a def benn concert bu inédit. Mhm. concert boo xamante ne spectacle lay doon parce que man su ma saa nee concert mi rek xam ngeen ne damay def mhm. spectacle damay ñëw ak samay danseurs ak samay musiciens ñu jouer en live bëggal waa Mauritanie donc nag ma leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw assister ndax. di doon lu yomb. Mhm. en fait bëgg nañ nga wax ñu ndax rëgëj bi ngay rëgëj Sénégal moom mhm. ngay rëgëj Mauritanie wala dafa am rëgëj plus. rëgëj plus la ñuy def Mauritanie. <laughs> rëgg rëgg si sañu def Mauritanie parce que euh, yàgg nañ ma sollicité pour ma ñëw foofu et puis euh, occasion la pour man mhm. ah, béggal sama fan si fa nekk parce que ñu ngi may yàgg laaj donc c'est sur que Reguej plus plus la mooy am Mauritanie mhm. yeah plus plus parce que euh, vous avez choisi deux dates yoo xamante ne ay ay dates yu yu yu baax la mhm. ndax ku ne xam na ne dañu génn ci événement rek dem ci événement boobu muy ñaari dat yoo xamante ne ci biir Mauritanie lay xewee dëgg donc le sept incha allah dañuy mhm. def dîner de gala def classe. toog def table. waaw def fête bu classe way nànk xam nga. Mhm. gars yi cons ñu defar foofu yëngal noonu yëngal nànk rek. Mhm. le huit nag ñu dem stade ba foofu moom day mokk. <laughs> foofu day moom day mokk stade moom duñu leen may dara incha allah rabbi mhm. ndax euh, ñu amuloon occasion assister si euh, si dina dîner de gala bi autant pour moi dina ñëw fekkee show bu bi et puis day doon loo xamante ne vraiment dina doon euh, lu graaw lu yéeme lu mhm. yéeme waay mais Mauritanie nga laal de Mauritanie ah Mauritanie du ay caaxaan de waaw Mauritanie Mauritanie ak Sénégal benn la yee benn la day neex rek. day neex <laughs> ay kon mu ngi noonu. day neex day neex vraiment. Mia euh, nga war a dem Mauritanie li ëpp ci Mauritanie ay naar lañ. Mhm. Euh, yaa ngi pare wayal leen ay wayu naar. waaw <laughs> maa ngi pare xagg nag. xam nga mhm. ma damaa dëgër fit may gisee nii. Mhm. ak maa mën a recherche. nañ fa xaar ay wuyu naar. Mhm. nañ fa xaar ay wuyu xaarpulaar. xam nga Mauritanie melting pot la. nañ fa xaar lépp. ñii dañuy dañuy wax olof ñuy wax pël ñuy wax naar. voilà donc nag euh, boo dem si dëkk. fekk ñu waa euh, ñu am culture bu bu rëyee noonu il faut nga adapté wu ak ñoom. donc préparé nañu yenn spectacle yi à l'avance vraiment pour euh, ñëpp ñëpp gis seen bopp. Mm-hmm. incha allah d' accord Aïcha kon dañ lay bàyyi rek nga def appel bi parce que duñ la téye xam nañ ni temps bi xat na et mm-hmm. nga woon ak waa Mauritanie <coughs> fàttaliwaat leen date yi et parce que mm-hmm. fans yaa ngi fi di leen xaar ci rëgëj rëgëj bi. waaw comme euh, comme euh, comme prévu dañuy def euh, incha allah dina dëggala le 7 man ak advisor ak ak ay artiste invité hôtel Azalaï lay doon. bu ñu fa jógee daal dem le 8 incha allah si bi stade Inter. donc euh, mu doon show boo xamante ne vraiment show bu neex lay doon parce que day doon euh, con euh, spécial concert boo xamante ne musul am mhm. ah, concert bu yi musul am donc ñëpp nañu ñëw dañ jënd seen ticket à l'avance nag mhm. ah ticket yi déjà je pense que génn na mhm. donc na ñëpp daw jënd ko incha allah te waajal la sept ak la huit mi yaa gisee advisor du yomb du yomb mais date boobu yaa ngi koy pare pour di ko def chaque année foofu mooy tane waaw yàlla baax na <laughs> yàlla baax na ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak internet yi ñu yeewi la. ma lay remercier di kontaan ci invitation bi. Mhm. di wax euh, waa Mauritanie ñu xaar. Mhm. xam naa ni yàkkamti nañ lool. Mhm. namm nañ ma may maa leen daw nañ xaar la 7 ak le 8 incha allah mi yaa ñëw yëngal. daal di dem ayca <laughs> <laughs> mu ngi noonu rendez-vous le 7 et le 8 ans foofee ca Mauritanie et di wax rek bien des choses à tout le monde et di wax aussi bonne fête à tout le monde ciao ciao.